Hello. ñu àgg kër ga ma jël kayit gi jox ko jël un million ko ni ko oto bi bàllaal sa bopp jël musuwaar kanamam jooyat fomp ne ma buuru ma ne ko mbàkk mu ne ma ñaari jooy benn jooy bi neel Omar sama xol set neel Omar siggil na ma neel Omar sagal na ma neel Omar teral na ma neel Omar seen maam yàlla na ko yàlla defal eh moom ci dëgg de maa ngi ma ko mbàkk mu ne ba ngeen jooy bi xam ko lu mu ma ne ko déedéet. mu ne ma neel Balla du sama taaw Malal mooy sama taaw yàlla dogal ma jaboot waaye neel Balla dégg naa ko sama jaboot. moo tax bi ñuy ak lu ko jiitu Malal di teew. uf jigéen ku dul woon na mbaat du biir am mbaat bu biir doom am mbaat day xaaraani borom ci na ma neex am la ma neex yàlla may ko kenn ku mujul doom mun ci suuf si doom a jaa ko kenn ay ba sëy ba fekk si woon gor bu baax daga xadi gor ci ko ko ko suturaal ko li ya abdul Aziz jur lepp ak li alaaji masatu jur ak ko sokko ko alaaji ali Ndiaye bayina la xel ndax sa yar say teggin sey bëgg lu baax doylo su borom keur demoo dikkoo say wax bari bariwul xuloowoo waxoo lu ñaaw fekk woo lu ñaaw li la ñuy doy jigéen ju baax mu Aziz di ci suma batay bo gisee yendu sunu mag laa bagage yi nekk yàlla ragaloo Aziz yàlla sa jàmm yàlla yàlla na leen yàlla la fa cat yow bëggoo kenn Aziz yaa nga bëgg waaye Aziz it bëggul kenn yow mii la bëgg gis nga nit boo ko bañee doo ko tuddee doom nit boo ko jëppee doo ko tuddee doom nit bu la doo ko tuddee doom waaye xam nga li tax nga jël tur wi jox Aziz Ndiaye ba nga seen diggante yàgg ba nga Aziz Ndiaye seen diggante yàgg moo tax nga jël doom muy wuyoo ci sa kër gi yàlla na gudd fa foog ma insister ci yow parce que ay sami toog ak ndayaan tamit toog dañ na ma insister ci Balla Gaye ah. kenn ñoru leen yàlla la tax hmm. doom ji amoon na ñeneen ñoo ko mën a tuddee waaye nag sa diggante ak Aziz Ndiaye dana yow rek la hmm. yow it moom nga yow rek hmm. kon turandoo bu ñëwee nga def lu rafet lu mel nii turandoo bi na ay ne ma jole ma ne ko mu ne ma yaay man ne ko ah mu ne ma turandoo bi daf ñoo bett ñu fëgg ko mu ñëw ci ndigali jëkkëram na ko Aïcha non ah mu ne ko non man ci def di nga ànd ko maa ngi nii tëli ñu dama doon def émission mu ne ma dañuy toog dañ ne ma insisté ci Balla Gaye. waaw waaw. Ah. kenn ñoru leen yàlla ñor. dëgg la. xam nga lu tax. Hmm. doom ji amoon na ñeneen ñoo ko mën a tuddee. bari na waaye nag sa diggante ak Aziz Ndiaye dala yow rek la. Hmm. yow it moom nga ne yow rek la kon turandoo bu ñëw yàlla.